waa mais invalidation wu candidature Karim Wade bi moom moo sus moom moo waral commission d'enquête parlementaire bi ñu ne dafa am corruption alors si on met sur la balance report élection ak danger yi mu mën a euh, indi ci réew mi yëpp ak invalidation Karim Karim Wade euh, commission d'enquête c'est ah, quoi le mais kiy wax yow boo nekkee yow boo nekkee simple observateur waaw ah. da nga naan invalidation Karim Wade jarul élection bi yàqu mais boo nekkee militant PDS jóge ci nguur gi depuis ñaata depuis. depuis 2012 waaw muy ñaar fukki fukki at ak ñaar di trimer di liggéey à la base ci kii am sa candidat yaakaar jotaat ci nguur gi ñëw éliminer ko <coughs> mais yow yow li la intéressé du sa élec do élection bi li la intéressé mooy sa candidat bokk. tout dépend ci ki nit ki ñuy wax rek. lan mooy leen xam nga fi ne kenn kenn wax fii kenn waxu fi pour réew mi de ñuy wax naan Karim Wade bokk dañ koy wax parce que soit bokkuñu bokkuñu ci camp Karim Wade wala Karim bokk arrangé wu leen et cetera wala bokk ñoom seen candidat day bokk ñoom li ci des seen yoon newu ci mais gis ngeen fii sax gu ni na xale yëpp génn dee ku ku dee sa yaay jurat bëgg a bokk. loolu amu fi nit ñi nit ñi di nit ñi di dee parce que da ngaa bëgg a bokk kële ni noo damay résister parce que dañ ma kii ndax dama te damaa bëgg a bokk ñu ni waru ko def ah non cest à ku nekk aussi ñiy jugé yëpp ku nekk ça dépend ci yow fi nga fi nga toog fi nga toll boo nekkee yow yow boo nekkoon président PDS militant PDS militante PDS li ngay wax ni doo ko wax non du ma militante PDS mais j'aurais souhaité que Karim Wade bokk voilà euh, c'est une injustice quelque part mhm. voilà mais mhm. lan mooy intérêt réew mi xam nga lan mooy intérêt réew mi. Hmm. ñu def élection bi en ci datu élection bi nii nii bañ ko reporté mooy élection réew mi le 24 février comme Karim def na recours gars yi examiner son recours vraiment concrètement buñ gisee ni indi na élément yoo xam dafa war a bokk ñu dugalaat ko mu bokk loolu mooy inter il faut il faut être juste aussi dans la vie xam nga injustice non non sont mais mën nga indi ay defal naa non defal defal naa soxna si mën ngay indi ay éléments nouveaux xam nga décision wax recours ak par exemple yow boo amee pièce boo xam dañ ko soxla ci benn procédure pièce bi réer la bu décision passé mën nga ñëw indi pièce boobu bu la leeree ni lii pièce bi la preuve mën nañ la juger yow ba condamné la définitivement ay années mais yéen du du am nga c'est pas le même scénario. Euh, dañuy waxtaan ci droit nag xam nga soxna si nañu waxtaan ci droit. mais ci droit. décision conseil xam nga bu ñu nee incertitude de recours c'est pas loolu amul ci benn droit ci àdduna. xam nga bu ñu ne mën nañ la condamné cour d'assises nga dem recours ba recours yépp jeex ñu condamné la à mort tout ça ba nga jaar croix de la mort ban ñu rey la. sa doom bu gisee beneen élément nouveau bu la war a bu demee dañuy ubbiwaat procès bi réviser ko loolu c'est un principe général du droit. quand il y a un élément nouveau boo xam ne ni juge bi ñuy juger bu ñu ko xamoon mën na changer seen jugement loolu da koy introduire. mais élément nouveau bi mën a am mooy. que le PDS arrive à asseoir la preuve qu'il y a corruption. non loolu du élément nouveau. élément nouveau et dans ce non, cas c'est l'IGAJ qui se saisit. non non bu fekkee ni bu fekkee ni euh, Karim Wade fourni élément yu montré que. bien avant depuis le 26 octobre mu indi déclaration consul bi dûment motivée wane procédure bi fi mu jaar yëpp wane ni depuis lors la perdoon nationalité am loolu élément nouveau la loolu cee war a tenir compte pour xoolaat yëf yi ko mu nekk candidat. mais c'est Karim Wade lui-même moom moo fournir un document actant de sa perte de nationalité française en date du 17 juin. loolu décret bi la. soxna si je vais t'expliquer bi mooy li nga xam ne mooy marqué pertu candidature bi def na ko la 26 octobre 2023 ambassade du France bi nekk Doha. loolu yëpp joindre na ko ci. consul bi defal ndànk consul bi constaté na ko loolu c'était bien avant lii. mais loolu yëpp dugal na ko ci dossier. ma wax la sax leneen élément est-ce xam nga ne Karim procédure yi pour renoncer à ça defoon commencé na ko depuis 2018. ay lenteur administrative moo ko mais depuis 2018 la commencé procédure yi te loolu am na ay éléments yoo xam ni dugal na ko ci recours am bii pour wane ne depuis 2018 la commencé loolu.